nga xam nekk que pas jëmale si nga xam tout d'abord naka na daal di le fait que ki nga xam nekk moo di euh, Ayib Daffé dem yóbbu li nga xam que moo caution bi et que ramon euh, nañ que ni ki nga xam euh, le leader de Pastef di ki nga xam nekk moo di Ousmane Sonko DGE nangu ko nangu ko jox li nga xam sa fiche de parrainage et que yëf yi ba tey mi ngi devant les juridictions exactement. ouais mais ramon nga Ayib Daffé ak loo ko waxal mom liggéeyam lay def. moy mm. manam il est le mandataire de Ousmane Sonko. moy mm. manam buñ ko nee yóbbul li mom da koy donc la faute c'est pas à Aïb Dafé. donc Dafé da fay yobou caution comme tout le monde. Mm. ñepp doon yobou une caution au niveau de la CDC ah, déposer une caution pour élection yi. Hmm. mais Ayib Dafé a fait la même chose dafa def la même chose que ñeneen ñi lu ñu def. donc il faut pas imputer la responsable à la responsabilité à Ayib Dafé. Hmm. donc euh, leneen mooy maanaam euh, caisse de dépôt et de consignation ñom daf ma jaaxal. Hmm. man daf ma jaaxal man fi Sénégal man xam nga dans le la man je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans ce pays man comprendre ma luy xew suis hmm. ci rew mi. moy hmm. manam ay nit yo xamantene dañ la ne li moy sa mais nit ñi dañuy defale ay quand même ay non mais attends la je lu la caisse de dépôt et consignation mom la def mais mom sa na recevoir après mu rejeter mais quand il a reçu donc euh, les, la caution ba jox ko quittance après aussitôt nga ne bon ñoom dafa né d'ici trois jours balaa ñuy jox euh, euh, mooy maanaam mooy la quittance finale mm. mooy maanaam fokk ñu càmbar d'ici trois jours pour ñu xam ni que war nañu la jox le document final mm. mais non respecté wuñu seen kàddu bu fekkee ñoom délai de trois jours la ñu am pour càmbar pour ñu mën laa jëbbal mooy maanaam sa këyit boo xamante ne moom ni que yow di nga bokk wala nga sa caution mais ñoom bu ñu ils ont ils ont reçu ils ont reçu la caution aussitôt après quelque temps ñu ñu jox ko pour mu dala wala ñu pour ko yow dañuy rejeter jël sa parce que yow mais ce n'est pas leur rôle. Hmm. Ce n'est pas pas comme ça que ça se passe dans ce pays. Hmm. Encore une fois, chaque jour, nous avons hmm. Même si Ousmane Sonko beaucoup d'élections, mais d'où c'est Anami, ils rejeté la caution. Ce C'est pas comme ça. Parce que nous, la CDC, nous, le mot final ne, ne, ne revient pas. C'est pas à eux de prononcer finalement diw du bokk. Euh, donc da nga Japon, ni euh, li non non euh, c'est pas c'est pas mais cela incombe à qui même des naa sax dégg non, ci ni Ousmane mm, Sonko nek ci nga c'est que sëñ bi. soyons mm. sérieux dans ce pays. et soyons sérieux dans ce que nous faisons man loolu lay ñaan bépp administrateur ku nek ci société ku nek ci ci ci administration yi ku ci institution yi kawe yi mais soyons sérieux dans ce que nous faisons. nit da war a sérieux ci sa liggéey ñëpp naw loola mais loolu muy liggéey. CDC hmm. même bu fekkee Ousmane Sonko bokkul ci le fichier électoral même xam nga ñoom alibi boobu la ñuy wax. Hmm. ñu ne way dégg naa ñi naan way DGE moo leen envoyé. le fichier ñan ñoo lañ ñan lañ ñoo wara déposer sen caution ñan ñoo bokk ci fichier mais buñu chambaré dossier bi dañoo gis ni que Ousmane Sonko dossier boobu euh, DGI envoyé Ousmane Sonko tourom bokk parce que euh, CDC nee na ku jëlul euh, fiche de parrainage attendez doo mën a biral caution sëñ bi man d'accord na ñu dem ba au final conseil constitutionnel ne diou warul bokk parce que diou dafa am contentieux avec la loi wala diou turam nako ci fichier électoral parce que ñu c'est normal parce que mom mo yoré le mot final hmm. la le conseil constitutionnel mais ci ay institution yu ndaw yu ñuy jaar ni ñuy rejeter ay candidature jambour fofu lay même si ki warul bokk mais c'est pas comme ça du c'est un est-ce que warul bokk c'est ça est-ce que warul est-ce que est-ce que est-ce que mais fofu mais du ci nga non diw parce que wala du wala man damay rejeter caution pourtant jëloon nañu fii ay caution Karim wad ñu koy fateli deug na ay nit mémoire dafa ba deug na ay ño mémoire dafa ba gis na len ci plateau ñi waxat la même chose mané mané ñi au moins sen sen sen sen seen xel baxna ba ñi fàttaliku. Hmm. amna ño xamantene événement bu jàllee dañuy faté aussitôt cette mémoire mo mel nonu cette mémoire moy mo mel nonu yow Karim Wade jëloon nañu fi caution am nañu fi té bobu il a été condamné définitivement man dama bëgg ñu taxaw ci ben affaire il faut que il faut qu'on soit euh, euh, qu'on soit logique est-ce que Ousmane Sonko encore une fois war a Seigne yi Fallou ak li nga xam. ak sénégalais xam ko est-ce que waji ñi wax ni est-ce qu'il a été condamné définitivement dans une juridiction sénégalaise wax ma non dama bëgg mu leer quoi soyons man dama bëgg xam yalla deug la xam deug la bëgg. man dama bëgg tay nga ne ma Ousmane Sonko du bok ci élection parce que il a été condamné définitivement ci ben ci délit bi ma d'accord ak yow. non mais bi deug nga est-ce que le max est définitif deug nga Ismaïla Madior Fall waxu c'est définitif mu ñëw taxaw ci médias sénégalais mu ne leen que wax ni la condamnation est définitive est-ce que en réalité en droit la condamnation de Ousmane Sonko par par max était était définitive mais non une condamnation de de par Contimax n'est jamais définitive. Hmm. parce que le fugitif peut apparaître à tout moment dans dans ce cas il casse ce qu'on appelle le max. te Ousmane Sonko jàpp nañu ko de où est le max dont on parlait maintenant man dama en en toute sincérité sans ñu bañ par parlo, il faut poser les bons les les bons débats man le lagum, gëm man dama gis ay co-débatteur ay ñu faré APR wala ay kii li di di wax ban seen jéemén di four alors que daru ko mbir di wax ba sa jéemén fuur lan la dangay wax deug andi loi teg ne loi bi mo condamné Ousmane Sonko te te te du meuna bok ci élection. man je man dama bëgg man tey Seigne Fall xana xamo ben affaire. Hmm. su ma loi bu findé ni ko Ousmane Sonko warul bok ci élection man je serai le premier muy taxaw ci plateau ne leen hé mu ne wa passif hé bàyyi leen caaxaan Ousmane Sonko du bokk ci élection. Hmm. loi bii moo ko tënk. Hmm. mais man gisuma boobu loi gisuma bobu loi au Sénégal bu ne Ousmane Sonko warul bok ci élection te du bok man gisuma ko ku ko gis na ko na na ma ko andil ma ma gis ni ki que loi bi mo nek ni hmm. ku gis loi bobu man maa ngi lay ñaan nga andil ma ko nga ne ma loi bi mo ne Ousmane Sonko du bok ci élection. parce que man dama japp ni ko Ousmane Sonko bu ñuy wax noonu il n'a été jamais jamais jamais condamné définitivement. nañu bàyyi ñi ñuy taxaw ne di foyee sen xel. Nous avons dem CDC nous CDC rejeter la candidature de Ousmane Sonko. parce que nous avons dit que n'a pas ci fichier électoral. Ousmane Sonko tout lan la warul pas fichier électoral. une personne il n'a jamais été condamné définitivement. alors alors merci. Euh, non non mais arrêtez. Nous, nous ñëwaat ba nous, ñu ngi euh, ak ko ci Nous, yi. fichier euh, électoral. Nous, dans ce pays. ok